asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu tey ñëwaat nañ ci seen beneen numéro yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey ñu ngi ñëw fii koo xam ne nii mën naa ne du jar sax ñu leen koy présenté ndax euh, Serigne Ismaïla Mbacke sëtu imam sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay siyaar. waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki talibe yi maa ngi leen nuyu bu baax seen tur ak seen sant di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak di indi jàngat yu gàtt di ko tënk rek ci li nga xam ne moom la ñu bokk muy réewum Sénégal di réew moo xam ne réewum mag ñi la mu ne Cheikh Ahmadul Xadim ak maam El Hadj Malick ak eh, gépp kilifa doone goo xam ne ni am na ñu nekk sa ginnaaw mu mel na nag eh, gis nañ li nga xam ne ni conseil constitutionnel génne na ko. verdict bi mu mel ne gàllankoor na ku yàlla gàllankoorut muy Ousmane Sonko gàllankoor gi tax demul seeni pexe la waaye euh, du loo xam ne nii euh, mbirum sunu borom la waaye ñoom seeni pexe la seeni pexe yooyu nag li wolof naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam euh, dañ cee am nag lu ñuy teel a avertir nit ñi rek ngir comme door na yëf yi dee su ko reporté dañ dañ say dem incha allahu rabbi li may digal jeunesse bi nga xam ne nii ñooy jeunesse su Sénégal mooy waxtu wii du waxtu xuloo du waxtu xeex donte it mosuñ koo digal kenn digaluñ kenn muy yàq digaluñ kenn muy xuloo réew mi réewum jàmm la waaye nag combat par stratégie lay doon dafa am waxtu woo xam ne diggante dooleeg doole lañ naan loxoog loxo wala leneen ak leneen waaye dafa am waxtu woo xam ne nag combat xel lay doon te yaakaar naa moo ñu yóbbu fii ñu moo ñu yóbbu fii ñu egg si tey ma bëgg ngeen gën a jàpp di sant waa bitim réew waaye rawatina Sénégal gi nga xam ne kenn demul ñu des ci bu ñu laajee ñu joxe seen doole. ndax tur wi day dafa am lu mu jël ci yoonu murid lu lu am solo te loolu ma bëgg koo fàttaliwaat li ñu muy baatu positif fu ñu ko waxee xel yi day denc ci di yi moo tax bu nit ñi jógee nii di ci defee positif bu ñu laajee ñu joxe maanaam bu ñuy wootee ñu ñëw waxtu wii nag waxtu wi ñuy wootee nit ñi mooy ñu dem jëli seen carte yi bu kenn tay boo fa doon dem quatre fois wala vingt fois yi ñu lay renvoyer demal bul tay ndax sa alal la yaa ko moom sa devoir la da ngaa war a woote. na ñëpp dem jëli seen carte yi képp koo xam ne ni bëgg nga Ousmane Sonko sa biiru xol te fa mu nekk bëgg nga mu génn fa la vingt cinq février bii di ñëw incha allah yaa ko fa mën a génne jomaa <coughs> Diomaye fay nag mooy Sonko Sonko mooy Basirou Diomaye Faye te loolu it ndénkaane ca ka yaakaar naa ñoom ñaari nekkandoon ci biir kaso bi mu ne nañ ko pareneel yàlla def mu jàll ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne euh, euh, kenn du dem guerre di di waxale say armo comme ñoom ñi ngi seeni pexe ak seeni stratégie ñu nit nañ sa nekk te bañ xuloo bañ a xeex saa suñ demee ba campagne it nañ leen di fàttali na leen Ousmane Sonko mi ngeen téye ñun fàttiwuñ ko képp koo xam ne yore nga sab convoi di romb nañ leen di fàttali Ousmane Sonko mi ngi kaso bi te li ngeen ko téye neexuñu day loo xam ne it day neex walla mën a xare waaye Ousmane Sonko dañ koo jaay doole te seetaan gi ëpp lool nag waaye loolu it la may dalal am xelam mooy sunu borom lañ ko dénk suñ borom nag miñ ko dënk yàlla nañu ko aral boppam te yàlla nañ fekke ba nga xam ne ni képp ku ko mas a seetaan nag bu amee ndam bul ca wax bul ca àddu bàyyil xam ne ndam li ndamul sénégalais yi ko wooteel la ak njàmbaaruk jomam ju muñ ba nga xam ne képp koo xam ne muñ nga aw lor walla aw mettit bis dana ñëw nga am bànneex di fàttali nag fii ma dëkk muy lu mel ne Touba ak li ko wër muy région de Diourbel bi man damay artu rek ci bisu élection yi ku daa yàgg xeexum at wala ñaari at bu benn bis ñëwee bul ca tàyyi nañu dem woote massivement ba noppi it li ñu tuddee sécurité ur na yëpp ba kenn du fa mën a lëñ bët wala kenn du fa mën a yàq ba noppi diggalaale ko képp kuy nekk Sénégal ak foo mën a nekk boo wootee ba noppi nangeen toog xaar résultat yi mu génn ndax boo xoolee lii ñu def nii xam nañ ne mënuñoo am élection yi ci ci ndam moo tax seen candidat yi ñu teg maanaam ay tappale lañ ci teg ba tax na euh, képp koo xam ne ni bokkoon na ci état bu Sénégal bii ñu jekki-jekki mu jekki-jekki génn ne daa day daa day dem élection na leen wóor ne liñ naan mburu mburu foofu ko fëriñ la saa soo saa soo wootalee kenn ci ñoom rek mooy wooteel nga makki Sall mii fi nekkoon yàq réew mi loolu moom maa ngi koy xelalal ñëpp képp koo xam ne xàmmee ngeen ko mu nekkoon ci nguuru Macky sàll gii te yoroon ci benn poste muy ministre wala lu muy lu mën a doon ñu jekki-jekki mu dem élection na leen wóor ne maanaam ci ci ci ci bànqaasi Macky Sall yi la bokk te képp koo xam ne nii nag wooteel nga leen mooy wor nga Ousmane Sonko wor nga Sénégal ba noppi it wor nga ña nga xam ne ni doon nañ xeex ñu rey seeni bakkan ñooñu képp ku ci bokk mooy ñu nekk ñoom ñu nekkoon seen biir rek képp ku ci bokk nga benn sénégalais bu leen wooteel woote nag devoir la boo xam ne ku ne mën ngaa xool ka la neex waaye nag sénégalais yi bëgg seen bopp te am jom laay wax képp ku wooteel ñii nekkoon ci eh, eh, eh, ci nguur Macky Sall gi génn ne dañoo dem élection na la woon mburu foofu ko fëriñ lañ maanaam boo leen wootelee mooy wooteel nga Amadou Ba te nag ku ba ku bañu toroxtaange moom bu leen wooteel ku bañu toroxtaange ndax liñ jot a torox ndax xam nga loolu tàmbali maa xeex bi dafa am ñu ci duggoon tàmbale ne jabolise waaye man mii dund ci dëkk bi wala muy dox xaw a dox tuuti xam naa ne ni ñu doon jaxasee duñ waa waa waa Pastef nit ñu yaru lañ nit ñu baax lañ nit ñu am jom lañ nit ñu bëgg seen bopp lañ kon nag jaxase boobu tàmbali woon mujj naa dakk ndax xam nañ ne mënuñoo jabali si kenn ak sëriñ si ndax xam nañ seen Pastef xam nañ seen pas-pas léegi nag loolu comme amutut léegi stratégie bi ñu doon def yëpp yàlla saa suñu waajalee ba noppi yàlla teggi teg na le Sonko du du du du suñ du mooy suñu leader waaye nag ñun dañoo am ay pion yu bari yoo xam ne saa soo teggee benn ñu tegaat benn kon nag moo tax élection yi nañ ko waaj euh, dooloo booloo doon benn Touba bu kenn tàyyi na ñëpp génn bu ko defee ñi nekk ci dëkk bi tey ñi nga xam ne ñoo ñoo yore ñoo yore ñoo njiiti ñoo njiiti dëkk bi nañ wut ay oto yu doy loolu moom ci suñu combat bokk ndax xeex Macky Sall ak nguuram bokk na ci xeex bokk na ci jaamu yàlla ndax liñ fi def lépp mën naa ci tudd eh, bu leen fàtte ne te jaar na fi ci toowul sëriñ Saliou loolu mooy suufu sëriñ Saliou soosu nga xam ne gis ngeen Macky Sall li ak nguuram liñ li liñ teg njabootu Serigne Saliou ci mettital ak yu bëree bëree bari corona bi jaar na fi xaaj ba du dëgg ñu tëj néegi yàlla yi kon ñoom li ñu tooñ sénégalais yi dafa bëri loolu nag bokk benn sénégalais fàtte na ñëpp woote massivement xam ne ku génne saw kart wooteel Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye Faye ndax Sonko mooy usman mooy mooy Bassirou kon kon wooteel nga wooteel nga senegal kon loolu yi ñu ngi koy fàttali ñëpp di leen wax ne stratégie yi ñu dañ daa yi ñu daa teg fii ci dëkk bi ñun xam nañ ci lu bari waaye nag comme mettit woowu ñuy dund ñu ak sénégalais yi koy dund ndax xam nga loolu sénégalais yi faw ñoo xam ko day am ci yenn euh, li euh, nit ñoo xam ne li ñu man ñun mën nañ koo bana a bañ a man waaye tartar bu ñuy dund lu ko raw ñu ngi koy dund too comme Macky Sall dafa taxoon euh, tuddee ñu citoyen ordinaire kon ñun bopp ñun na na xamaale na citoyen ordinaire yooyu yëg nañ ne élection bokk na ci ñun jeune marabu yi ñu ñuy wooyee ñun jeune marabu élection yu am fii ci dëkk bi yëg nañ stratégie yëg nañ alal ju du jeex fa muy dugg ak ca ñame jaar yépp xam nanu ko waaye mosu fi am ndaw na ko leer na ko jeune marabu yooyu ñoo amul cawarte ñoo yore seeni tànk amuñu xaalis mën nañoo wër ci dëkk bi te xale yu góor yi nekk ci dëkk bi te bëgg bi dëkk bi soppeeku seeni xarit la ñooy ànd guddeeg bëccëg saa su defee combat xool mbër ya mu jàpp ne mën nañ mën nañoo am ndam saa suñ ñëwee ñu yëkkati daan ba ñu kaw ñu <laughs> daa dóor ci suuf na wutaa beneen solution bu du bu muy wut day am ñoo xam ne fa ñu toog rek la ñuy toog day am noo xam ne nag li ñu tuddee jeune marabout yi ñoo génération bi ñoo bokk génération ñoo ndawi tubaay ñoo bokk ñoo bokk di ànd li leen naqari xam nañ ko li leen ne xam nañ ko ñoo bokk lu ñu dund gis nga fi nga ko fi nga koy mën a xamee mooy li ñu tuddee Nicaragua du ab du ab sénégalais rek du ab taalibe rek a fay dem sëriñ sax jaar na fa bëri na jaar am na ñoo xam ne ñàkk nañ seeni bakkan loo ko indi dëkk bu metti xam nga ne dereeti sëñ tubaa buñ demee bañ nam ñi ngi jaar ci suuf yoonu suuf xam nga ne dëkk boobu metti na te lenn wëralu ko lu dul liis nit ñi dund ñi ngi koy dund te am nañ gor ngor te bëgguñ kenn ku leen yàpp jom joojuy sénégalais yi demee nag di di di raayante ngir am dara noonu la seen maaraabu yu mel ba tax na am na ñoo xam ne xëy na ñàkk nañ seen bakkante te lenn yóbbeewu leen lu jom jom mooy mooy bañ ba bañ ko leen yëpp te te te bëgguñ koo jaar fenn fu dul seenu ñaq kon ñun sénégalais ñoo bokk lu ñu naqaree nañ ko xeex lii bum ñu rëcc loolu nag lii première lancement la bu may def bu ñu demee ba tàmbalewaat campagne yi danaa leen waxaat beneen stratégie waaye bii mooy nañ ñëpp jëli seen carte. ndax ku bëgg génne Ousmane ko fee mu ne mooy da nga jëli say carte boo bisu woote ba nga nga woote te it leader yi nga xam ne ñoo nekk Pastef ren li mooy sunu sañ tàccu de kon nañu fexe ba lépp lu am kattan man koo def muy dëkk yu soreek roq-roqaan yeeg fépp fu bureau de nekk ci dëkki àll yi ndax foofu daan nañ fay xaw a xaw a am tuuti kii nañ fexe ba xool ñoo xam ne ne am nañu xam-xam xam nañ ni ñu def ñu yóbbu leen ñu ñu représenté leen ci bureau de vote yi ba noppi it buñ bàyyi fenn fépp fu dëkk nekk te ab sénégalais nekk fu ñu def ba noppi it xoolaale frontières yi nga xam ne dañ fay man di sàcc rawale nit ñi ñu ñëw di woote ñoo xam ne ni légaluñ yooyu yëpp ñu fexe ba fu bureau de vote nekk ñu teg fa ay nit ñoo xam ne danañ sécuriser ba njuuj njaaj du am donte xëy na ñoom seeni njuuj njaaj mën naa bëri waaye mën naa mën naa bañ a am solo te bu nit ñi xëyee teel a woote ji balaa midi ñu taqalikoo ñoom ndax ñoom deuxième tour la ñuy wër te deuxième tour boobu it euh, yàlla mën nañ leen ko bañ a bañ man yàlla mën nañ leen cee bañ a dimbale kon daal ñu xamal leen ne leen Touba moom insérer nañ suñu bopp ndax fii ay gor fi ne kenn du leen jënd ndax xam nga nañ ko bu fekkoon xaalis leen di jënd li ñu fiy dugal ci xaalis élection ba élection kon kon Touba kon Touba yàgg nañu am Macky Sall yàgg na fi am am am ndam waaye Touba leen fëkkut seen bët lu du sëñ Touba. ndam rek lañ fi am saa su ne muy kenn leen leen nga leen di mën a jaay muy Serigne Touba ak won leen ngor ak jom waaye nag boo leen wutul loolu lool lool nag ak koo mën a dajale ak pexe moo leen mën a def ak coalition yu ñu mën a doon it dara duñ ko fi am saa su ñëwee ñu ñu ñiñ tuddee seen maaraabu te xeeb leen di leen fi bàyyi ñoo leen yëkkatiwaat ba ci kaw ñu dóor ndax ñun dañuy politique te duñ ci boole wax. saa su bisu élection yi ñun nag jeune jeune jeune jeunesse bi ñooy ànd xam nañ fi ñuy ferekante xam nañ li ñu bëgg xam nañ li leen naqari ñooy aw ci suuf rek bu ko defee stratégie yu ñu teg ci dajale kii yéeg di corrompre ñu ñëw yàq lépp te élection yi ñëw mooy gën a metti xam nga yee jàll metti woon na loolu waaye yii mooy gën a metti waaye daal maa ngi fàttali ne képp koo xam ne ni nekkoon na ci Macky yoroon fa benn doomu tànk na la wóor na ba léegi génnul ca mooy Amidou Amadou Ba ak ak ak i ñooñam rek deuxième tour la ñuy wëri rek deuxième tour yooyu nag bu leen ko sénégalais may fii ba ca àll muy Saalum euh, Kajoor Bawal fu mu mën a doon man li may man li ma li ma li ma tuddee mouvement sécurité suñu sécuriser suñu dëkk man Touba insuré naa sama bopp mooy dinaa ko sécuriser dinaa woote dinañ woote dinañ gagné Touba loolu nag na ko ne waa mbuur def mooy lu ñu tuddee challenge bu bees dinaa sécuriser sama dëkk dinaa woote dinaa gañe tuubaa def ko mbuur def ko Saalum def ko Kaolack def ko fu mu mën a doon def ko ba ci bitim réew bitim réew moom kenn demuñu des xeex bi kenn mënul leen ci buñ laajee ñu joxe buñ wootee ñu woote massivement kon nag yàlla na Sénégal am jàmm dañu woote ko ci dal que le maire gagne jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon ñun ci waxtaan bi ki nga xam ne leen indiloon tey mooy Serigne Ismaïla Mbacke surtout imam di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen invité jërë ngeen jëf.